أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي أن أبقيت سرمدا ولا فسرمدا صلي وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ ما أرم سل عليه في جميل آلي ما سلام وتجب سؤالي سل عليه في جميع السابق mbokki jullit yi ak taalibe yi ba tey yéen ñi nga xam ne nii yéen a ñuy bàyyi xel foo leen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ñëwee ak yéen rek ànd ak yéen ci xew-xew bu màgg bu am solo bi am fii ci Touba ci quartier Darou Ndiaye di màggal ak Serigne Darou Hassane xam ngeen ne màggal gi ñi nga xam ne ni ñoo di waa kër gi di taalibe yi ngir màggal di jëm ci anam yu mucc ayib dañoo fasantikoo ci ay bànqaas yu am solo ñoom ñëpp nag ki leen tënk di comité d'organisation bi. bokk na ci ñooñ xam ngeen ne communication ci ñi nga xam ne ñooy amal liggéey bu am solo bi di tasaare màggal bi ak liggéey bi ba fu mbokkum taalibe nekk mën cee joti waaye gannaaw ñooñu itam ñi nga xam ne ni ñoo de bànqaas bi social di ñuy saytu lépp lu jëm ci jàppalante ak dimbalante ñoom itam def nañ jëf ju am solo muy fexe ba ñi nga xam ne ñoo di ay docteur ñoo ci bis bi di def ay liggéey yu am solo liggéey yooyu nag bokk na ci li ñuy wax consultation gratuite maanaam xool wér-gu-yaramu nit ñi te duñ fay dara waaye di leen may ay garab gannaaw loolu itam suñu équipe yi nga xam ne ni ñooy def reportage ci terrain bi doxantu nañ foofu ci docteur yi ngir na xool liggéey bu am solo bii fan lañ ci tollandi ñu teewlu leen. leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen sant bu baax a baax ci teewaay bu màgg bi ak suñu bis bu màgg bi ngeen ñu fekk si di leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfeex ak taysiir ba lépp lu ngeen ci bëgg rek suñu borom defal leen lu kawe seen njort ñu mel ne euh, commission sociale moo ñëw fii ci baasu commission santé di sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew si rawatina sunu waajur di bay Bara Seye Niang tey ñu ko rano avance di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yokk ay leeram te taasu ci barkeem di xam ne tamit ak njabootam ñu ngi ci liggéey bi ku ci mel ne soxna Ndumbe mi ngi ni taxaw ak euh, ak Cheikh Abdoulahi moom mi ngi ni taxaw mu mel ne tey liñ koy liñ ciy wax rek ci Baye Bara Seye di ko di leen xamal ne liggéey bi ñuy dox ba egsi fii tey mën nañoo wax ne fit yi ñu am moom ci la bokk ndax ko amoon pas-pas la ci liggéey Serigne Darou Assane bi ku amoon ngëm-ngëm la tamit te amul fenn foo xam te daan nañ ko fa soxla te doogu fa teew si ba saa su ne suñ ko mosaan fëgg muy guddi muy bëccëg day dagg itam yëpp li ñuy gone gone gone day jóge fee mu dëkk ba ñëw fekk suñu fi di ànd ak ñun ci di dem fu bari ci ci ci dëkk bi di ñu boole tamit ñu baree bari ba tax na maanaam liggéey bi fii ñu toll jàpp na ci bu baax a baax ñun ay ndaw lan yoo xam si ñoo ngi jóge si district sanitaire bu Touba te docteur Dieng jiite ko moom moo nu fi yebal mën naa ni fi toll ni toll na si lu mat euh, juróom-ñaari at yoo xam si chaque année man damay ñëw teew si fii nii si si si barab bi nii si jour bii nii muy jour màggal bi bon chaque presque chaque année ñun dañuy ñëw dañuy jël ay garab dañuy ko dañuy yebal bi mu ñuy yebal da koy booleeg ay garab ak ambulance boo xam si fii lay nekk ak personnel boo xam si ñoom ñëpp si district bi la ñuy ne quoi bon ñoom ñëpp si district bi la ñuy ne quoi après ñu ñëw bon. yëg-yëg bi nga xam si moom lañ si am mooy que ni bu ñëwee vraiment dañ fiy fekk équipe boo xam si dañuy teeru mais dañ ñuy organiser ba nga xam si tellement ñun bu ndikkee amul leen lu ñu si sol dañuy dikk rek toog di consulter. parce que par rapport ak yeneen euh, kii des fois dem foo xam si xam màggal yombul organiser parce que nit ñi fay ñëw day bëri. mais tellement ñun fii buñ fi dikkee organisation bi ñuy fekk daayira bi fi nekk taxawuñu ko si wàllu santé nga xam dañuy am commission spéciale boo xam si si santé la ñoom taxawu bi ñuy taxaw vraiment dañ see kontaan kontaan et puis moo tax chaque année aussi dañ siy sawar pour di fi teew si chaque année mais non seulement pos pos bi ñu siy am maanaam à chaque instant buñ fi dikkee rek liñ fi fos suñ borom dañuy defal xéewal ak yokkute ba nga xam si bu sa déwén saa dinañ yëg bu baax baax ak yokku si ñun loolu nag vraiment euh, kon loolu ku koy am chaque jour da ngay sawar chaque jour di ñëw loolu moo tax presque màggal gi moom ñun noonu lañ koy yàkkamte macha allah dañ koy yàkkamte parce que bu dul dara bernde yi ñuy defar rek wax dëgg yàlla sax nag macha allah mais non seulement ah, benn bi mais organisation bi fii fekk te aussi malade yi nga xam si patient yi nga xam ñooy ñëw ni nga xam si noonu la ñuy ba nga xam si presque ku dugg ngay xaar sa morom génn sa morom dugg vraiment te loolu lépp organisation bi moom moo waral ñi nga xam si ñoom ñoom lañ fi fekk ñuy organiser loolu moo tax à chaque ñuy sawar di ñëw si gàmm si màggal laka sukuri ba'da hamdin khalidi ya li an waladin wa walidi hasib li khair jati shaytana wa li yarud fi watani awtana bi hurmatil alif fi ta'awudhi khalid li al ismata ya muawisi bi hurmatil hayni taja abada ginaaw bu len tiare ba tay rafa do taxaway bi nga xamantene bi ne mom ngeen taxaw ci magal Ah, jar na ko ndax sëriñ Darou Assane moo liggéey lu ñu mel lii ngay sëñ ak njabootam lan la ko tàmbalee ci sëriñ Fallou ñooy ba sëriñ Abdou Khadir mii nekk nii sama ginnaaw ñëpp kenn ku ci nekk def ko fi liggéey boo xamante ne bii ne liggéey bu réer la moo tax ci eh, xilaaf ak eh, sëriñ Mbacke Awa mooy njëkk a toog ak xalifaam dogal ah, mu boole daayira yëpp ñu nekk benn. biñ fi jugee Serigne Cheikh Faty la ñuy xewal toog ci moom tamit boole màggal yëpp mu nekk benn waaye seen maam suñ jaru asan loolu la bëggoon ñu àndandoo nekk benn daf ne woon yéen sama njaboot da ngeen fexe ba àndandoo nekk benn mel ne sayu xat wu ñu takke ñetti buum lu lu mbër rëy rëy rëy mënu koo damate waaye saa bu ngeen tàqalikoo rek lu ko gën a tuuti gën a néew doole rek mën na leen a mën leen a faagaagal te loolu day dëppoo waxtu ci moo bi hablillahi jamian waaye buñ xëccoo bu leen valante bu leen noonoo muy wala tanaasaxoo fa tasdaloo wa tasabareexu ma wasbita Allaha maa sabirin bañ di xëccoo te bañ di valante te bañ di noonoo moo tax bi nga xamante ne bi ne suñu sequt si ngay xéewal dox na ci ab jéego ñoom ñëpp ñu àndandoo ci rafetlu ko nag loolu rafetlu googu nag mooy mooy law ba léegi waaye kenn ku ne ak pàcc bi nga ciy dox maanaam presse ak lam cee dox organisation bi ak lam koy dox waaye culture moom li ci ciy dox da caa bokk euh, jàng alquran jàng ay xasida salaatu ala nabi istixfaar def li nga xamante ne bi ne moo di exposé jàngale ku mel ne Serigne Darou Assane wala jàngale lu mel ne ab liggéeyam ndax Serigne Darou Assane daana wax naan day moom day itteem du lenn lu dul sant bi tabaraka wa taala mooy wa sukkur rabbin la sharika lahu jalalahu araado na bi li annahu jàll yoxtil mun a karaman wa yusilu ayda fi kulli saatin daana ittéem daal du sant yàlla li mu lay xamal mooy yàlla képp mooy jàmm moom mooy buur bi nga xamante ne bi ne jàmm bi koy sant mu am ay xéewalam mu ñàkke sant sunu borom bi tabaraka wa taala moo loolu indi ko inconvénient mu jariñ ko ci lan ci maanaam jaamu gi muy jaamu suñu borom mooy li koy jariñ waaye ñàkk ko jaamu mooy li nga xamante ne bi moo koy indi ay ay musiba moo tax mu ne yàlla képp moy bur bi nga xamantene bi ne jaamu ko njariñ la ñak ko jaamu ak lor la sëñ dal ko la tegon foo ko tegon ak ak njabootam waye mu ne Sëriñ touba nak yow da yaay ci nga xamantene bi ne ci ne ram ko ya hadi xawaa man yahdu ilayka bi khair fasikayat yàlla la yàlla fa yow Sëriñ touba fay ndax da yaay ko xamantene bi ne ku xëy dik ci yow dang ko defal li nga xamantene bi moy aajoom daan ne nag waaye nag yaay ki nga xamante ne bii ne dimbale kat ga daan ne aar kat ga musula kat ga ku ñuy wéeru la sakku muslim ci ñi la amalaa ko nag jàpp seefi ga sëñ Tuubaa lay waxal daan na fee dee aar kat ga musula kat ga ku ñuy wéeru nga te képp ku jaaxle bu ñëw ci da nga ko dimbalee daan ko yaay leeral diine ji yaay ki nga xamante ne bii yaay yëkkati li nga xam ne moom la ca moom la moom la suñu borom yi bëggoon waaye raasuma waaye xadimul xayri waraa yow Serigne Touba yaay liggéeykatu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam naafi dalaalaati yaay ki nga xamante ne bii ne yaay dàq ak réer te loolu boo ko seet ko xam Serigne Touba ñi fi bàyyi jàngale alquran liggéeyal yàlla jub ànd doo nekk benn loolu ci Cheikh Mourou Moustapha ba ci moo Mouhamadoul Mountakha mii fi nekk loola képp na xam kon lam lam ñaanoon am na ko waaye lam ñaanoon sëriñ Darou am na ko. Sëriñ Tuuba dafa ñaanoon wahab lana bii mu al amal saaliha ya xadimu zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu kon bennoo gi gi Sëriñ Tuuba bëggoon am na ko ci ak njabootam ba ci ay sëtam waaye Sëriñ Daaru Asan am na ko ci ak njabootam ba ci ay sëtam ndax ci ab sëtam bu ñuy wax Sëriñ Mbàkke Awa ci la déere yëpp nekk benn waaye ci ak sëtam ci la yëpp nekk benn mu di Sëriñ Seex Fat Sila Njaay xeewal bi ci ngi koy doxale mooy yëpp njaboot Sëriñ Daaru lay jox ndigal ba mu desee lu man ñaari weer wala ñetti weer ci ngay tàmbalee jàll ay kaamil nga xamante ne bi fi lii de nii day dañu gën amoon lu am di di jotoon a ñëwagul matoon na deux cent et quelques kaamil mais lépp ñëwagul. bu ñu demee ba ngoon jot lépp dana daje ndax fi fii may waxee nii maa fekk quatre-vingt-dix-huit kaamil waaw waaw yoo xamante ne bii ne quatre vingt yi léegi ma ko jox te am na koo woo léegi koo xamante ne mi ngi woon a quarante-huit kaamil yoo xamante ne bii ne mi ngi foon léegi lii ma yore nii rek kii bi ma yore nii rek du toll trente ngi ci woon kon kaamil yi kenn fan lay jóge ndax am na bis rek la ko jagleel ak mboolem ak mboolem njaboot xasida yi mënoo lim lim kenn xamul lu mu toll xasida yi kenn xamul mu toll salaatu ala nabi kenn xamul mu toll zikkar istixfaar yi maanaam fu njaboot gi nekk rek kenn ku ne yaa nag yemaleen ko ci ndaru ko ete nag daf ko yemal ci mboolem julit yëpp ak mboolem taaliba yëpp mboolem koo xam ne yaakaar nga ko wala nga xam ko wala nga bëgg ko wala nga sopp ko wala nga def julit ak mboolem ñëpp nekk ci jàmm loolu daal lañ ci defoon xam naa di rafetlu taxawaay bi jéem sant bu baax di rafetlu di leen di sàmm ak waa Sofi wa salaamu aleykum wa rahmatulah. gannaaw social ak santé. équipe yi ba tey wéel na seen liggéey dem nag fi nga xam ne nii moo di waañ wa waañ wa nag buñ ko waxee mu ngi fasante ci diggante ñi nga xam ne nii ñooy waajal xéewal yi di waajal café yi ñeneen di waajal lépp lu jëm ci collation ak fruits yi nga xam ne nii dafa ànd ci berde màggal bi gannaaw ñooñu itam ñi nga xam ne ni ñoo di accueil di dalal gan yi fu mën a bàyyeekoo ci anam yu sell te set ñoom itam doxantu nañ fa ñi nga xam ne ñoo di culture di taxaw lépp lu jëm ci njàng ak njàngaleem alxuraanu karim lépp lu jëm ci exposition bi di xamale jaar-jaar ak njàngaleem sëriñ Darou Assane équipe yi dem nañ fa ngir itam xool liggéey bu am solo boobu itam naka lañ koy taxawee ci bis bu tedd bii kon ñu ànd ak yéen ci kàddu yu am solo yi nga xam ne nii bàyyeekoo na ci secteurs yi ñu leen ko waxee léegi di ay secteurs yoo xam ne nii ñoo seq liggéey bi ngir nag màggaluk sëriñ Darou ci anam yu mucc ayib seet doomu aadama nekk rek man ko dundandoo ak waa Daaru Ndiaye jamono yii. rabbi sax li sant yi wéyatan ko ak Cheikh Mouhamadou Moussa ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam leen siyaare ñu taw bi nag tey ci biir sëñ Daaru Assane Ndiaye mu joo xam Eh, ku ràññiku woon la ci yoon bi jëf jëf joo xam ne daj na fépp eh, bokkoon ci ñi nga xam ne sëriñ bi fonkoon na leen lool bokkoon na ci ñi nga xam ne daanañu jiite sëriñ bi ak julli lu jafe loolu rek daa doyee yem ndax rajo bi toog noonu léegi ñu ko ñu wax doxal ci kanam dina rek am na lu ne ca yow sëñ bi ne moom day kiimaanu sunu borom te kenn ku nekk bi ñu lu mu fekk fu mu fekk mbir da koo dolli ba ba mu gën a yéen kon dafa bokk ci ñooñu ah ñu ñëw fi nag tey ànd fekk ci mboolem Daaru Xudoos rek dañu mën a wax ndax ñi fi ñii fi teew ñooy Daaru Xudoos ndax waa wilaaya sëñ Cheikh Diop ma nga ne moo moo moo moo jëwriñ ji mu nit yàlla def moom jëwriñ ji daawu daara yi nii te sëñ Mbacke man waaye ñu fekk feer sëñ Sylla waa Ati Baye ay Ati Baye te Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke Mouhamed ñun ñëpp ñu bokk ci teew maanaam moo tax ma la daaru xuus na fi fekk ñaan daan bu rafet yàlla boole ni tey ñu daje fii ci bis bi di siyaare suñu bopp yi waa ci daal kan jaay yëpp rawatina seen baay wax ni bàyyi seeral atam di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala bis bi lépp ñu alladina bacharu salli ala alxaaqibi wa wataha ma salamika wa sit wajaha wa alihi wa sahbihi al ajilla يا من بي أريتني الأدلة صل على خير الورى ياسينا ما سلامك وسر تحسينا وعلي وسبي الأئمة يا من يزاسع لغير غمة وسليا وسلما يا خاهر على معصم سماه تاهر وعلي وسبي الرجال يا من مع كل عن الأوجال سل وسلم يا مقتدر yaa man ilaa mardaati abtadiru ala alladi sumaatu mutaharu wala li wasabi alladina maharu wasal yan ma salaam tayyibi alladi sammaytahu bi tayyibi yaa xayra man

at yi weesu xëy na dañu génn ak système bi café bi ko donte daan na doon clé yu bëri waaye ren ñu am parce que jaayante ne café bi boolem café bi ñu tàngal ci marché bi ñu yaram yaakaar nañ ne war nañ ko mën a jaaye buñ ko defee itam am ci tawteex lool ba kenn ku ci ne jàpp na yow yaa ko war a def ba daal na woon jox lool lool lool lool lool ba lu daan def benn rek daan nañ def def na ñaar te lépp rek ñun ñoo ko jaayante ñi nga xam ne ñoo def liggéey bi jaayante lool ba lool café gi nag ñi ñuy baaxoo tàngal café bu màggal sëñ bu ñu nee suba la màggal moom lañ koy tàngal mooy le 19 le 19 bu ñu xëyee la ñuy tàngal ba euh, tokktaan nga arrêté la ñuy segg la ñuy le 19 bu ñu xëyee la ñuy segg ba tokktaan ñu arrêté segg euh, bi muy waxtaanu sataat yi buñ euh, séddalee ba ba gee ba ñëpp na ñu continuer fête bi ba muy àgg xam ne surtout màggal ci dara ci màggal bi moom duñ teg ci màggal bi moom duñ teg dañu dañuy dënale ci dan ci gan yi ne suñ xëyee kër sëriñ yëpp dañ ko yóbbu café kër sëriñ yëpp dañ ko ini café gan ñi nga xam ne ñooy jóge ci àll bi ñu leen ñu leen di dalal ànd ko su commission dalal gan ñoom itam fu kat fu gan dikkee dikk wax ni ko yóbbu ñoo ne café noonu la ko def waaw loolu moom mën nañ cee am luñ ko ak lu waaw lool dëgg bañ koo dalee def ba léegi daanaka am na def ñu tey noonu lañ koy defee euh, ren nag am li ñu ko waxee léegi ak yokkute am mbana yi itam saal ñu te juróomi mbana ak ñaari mbana yu mag yi mbana yi benn bu ci ne ñetti mbana lay def man la man bi benn bi ñett mën a nekk waaw yëpp lañ koy teg fi ñuy teg nag dañ daan rangale bëri kuy waaye dañoo gis ni bëri bu baax day bëri léegi bëri mag yi seetal nañu mag yi ci lañ def kafe ci lañ def kafe defee kafe bi xam ne bu ñuy sukkar moom dañuy xel rek ñëw di sukkar di koy waaw Serigne Cheikh Diop mooy jël eh, ci ci ci kafe bi ak euh, ñi ko àndal ñëpp ñenn ñi dañoo génn dem te àndi waxtu yi buñ ci tollee ndax dañ une heure bu jotee dañuy pause liggéey liggéey bi lépp benn la lii ab sous commission la banqaana rek waxtu yi kon du am lu ñu def ñëpp dañuy daal di maandu dem te àndi ñu dënle añ buñ dënlee àndi ba noppi daal tuut tasewe tàmbaliwaat seen dafay الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك اجعلني سرور السالين سل بتسليم الهلي الله على المسمى بحبيب الله والي وسابي المفضلين وابدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله ولا ولا يا سل بري وعلى نسكر واذكر النسري سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولا لي ولا ساب أرباب النوال وبيبصرنهم يا خير وال صل وسلم من يا إلهي على المسمى بكليم الله وعلي وسادي ذوي الهمم يا من لغيري يتوجه الأمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وعلي وسادي وسلم يا من يوجه لغيري ألما سل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي والي وسابع للسبق يا مهيا من شئته وتبقي سل وسلم يا في ينجي على الذي سميته بمنجي والي وسابي الابتال يا ما هي الكسل والبتال على Capitaine Cheikh El Diofane dafa jiite comité organisation fédération Jamaat ak Hidaya Thiam Assane nga xam te Sénégal yëpp moom la bi xëy na nekk ci liggéey bi ñu jiitee euh, liggéey organisation bi xëy na mu tuddi ko nag ay pàcc yu yaatu bu ñu li ci gën a bokk bu ñëwee fii nag bu dee fédération dafa jël liggéey wàcce ko ci Touba Touba bu kii a dañoo xam ne comité directeur bu bu moom mooy taxaw liggéey bi en même temps comité bu Touba dañuy bokk ci ki ko jiite mi Mame Ndiaye topp ci ginnaawam bi ñu ñëwee ay sous commission sous commission bi am na sous waañ ma bokk ci kii taxaw ni mu talaa mu talaa mi taxaw dem sama moom moo waañ fii ci man ma topp ci ginnaawam ngir ñu war a taxaw li xam ne moom la ñu war a togg ci biir màggal bi moo xam berne yu mën doon rek ba leen lu ne gan ji ñëw rek ak cër bu ko yàlla jox su dikkee mu fekk xéwal yoo xam ne mii nga ak moom ba mu mën koy jox te lañ toog ñu togg yu bëree bëri xëy na bu fekkee fi ñu nekk ni ci waañ tool na toog na lu tool ci neuf waañ mais juróom ñeenti waañ waaw moom moo xam ne moo nekk fii ñu nekk nii juróom-ñeenti waañ ci ni ma séddu ko ci ay carte dañoo jox bi ñu nekk di di Dóoru am na waañ waañam mi ngi toll ci vingt cinq mbana waaw am na beneen carte bu tudd Sula am na waañ waañam mi ngi toll ci vingt sept mbana am na beneen waañ bu tudd Tayib mi section Tayib am na waañ waañ mi ngi toll ci vingt cinq mbana su fekkee Touba Foras am na waañ waañam mi ngi toll ci vingt cinq mbana su fekkee am na waañ waañam mi ngi toll ci vingt huit mbana su fekkee Touba Jàmmagën am na mbana am na waañ waaño mi ngi toll ci 20 mbana su fekkee Touba Darou Salaam Guédé am na waañ waaño mi ngi toll ci 15 mbana su fekkee Bëgg Bamba am na waañ waaño mi ngi toll ci 20 su fekkee Touba Kébéla am na waañ waaño mi ngi toll ci 25 loolu bu ñu complété ko moo ngi jox 210 mbana yi nga xam ne moom la ñu soxlawoo ngir fas yéene koo togg ci bis màggal geeg yooyu waaw ñun moom man dama ko gëm di ko wax toujours man dama jàpp na man benn bis la am dama dégg soxna may doomi Serigne Touba la mu wax na mu amul benn bis bëggul benn bis benn bis la bëgg muy leen xadar dañoo wax leen xat dafa ñëw mu togg ay ginaar yëpp ko sëñ Fall sëñ Fall na ko da nga dem ba ci rey ay giléem loolu ñëpp dañee seen bët ñun nag sëñ Tuubaa suñu doon lañu féete loolu ab cër la boo xam si ñun dañ ko am moo tax bis bi rek la ñu am moom rek mooy suñu féete yàlla xam ne moom nag la ñuy waajal moom donc bi mooy ñëw bam jalal ñu ñu def luñu déwul def benn bis bi la kepp nag amul benn bis du ma tudd benn bis du ma tudd dara nag waaye benn bis la ñam moom la ñu fonk lu baax nag fépp la am fépp lañ ci wuti jee waaye nag nit ki day fonk li mam ba pare lu mu cay doole mu doog ko caa dolli ndax ku bàyyi naas ku bàyyi naafila te ku bàyyi sunna la su subaa day mel ne li ngay nekk du neex àtt daal moo tax bis bi mooy suñu farta ñun moom la jàpp pare luñ ci doon ñu ko dolli ngir leen nag jar na ko sëñ Tuubaa daf suñu leetar suñu door san bi leetar na ko soo àggee sa loxo ak loxo suñu door san sëñ Tuubaa suñu ñëw li te suñu Tuubaa biñu ci nag door san gërëm naa la yàlla gërëm la alxuraan gërëm la sa ñaawit gërëm la képp ku la liggéey lu toll lii dee ci wee seeram araam la sawara foofu man dañ ci war a taxaw lu tax sëñ Tuubaa dafa waxoon dafa dajoon mag képp gis soo xam ne am na àjjana ju amut jaamu yàlla nang fa dem waaye man amuma ko sëñ Dawsa nag lan la def ba ku ko liggéey ku ko liggéey li dajwee teem araam na sawara loolu war ñu ko war ñu war ñu ko leer ban xam bën ci la moom sëñ Tuubaa waxaan ne bi ko góor di juddoo maam yàlla rek lay neex waaye mënu koo jëf wax na tamit ku ku ku mu sa ginnaaw soo waxul ñu jiitu la kon war nañu xam kooku moom mekkat ak ban dimension la am ak sëñ Tuubaa dugaloon na ko xalwa histoire li mu nekk tamit wax na ne moom doo nga wax na ne doxal julli mag mu ko wax na ko daw rasan demal xam-xam waaye du ñu gën a ragal yàlla xool jumaa la woon yooyu na nga xam ne a waxtaanaat ba nit ñi xam wala loolu lépp ndax dugal na bi mu dem na dugal na ko xalwi ah, gis naa montagne mu rëy sëñ Tuubaa nag sama jumaa ji Tuubaa lan la man ak ci njëriñ yooyu nag ay mbir la yoo a ne a waxtaan nit ñi xam moom mooy kan ak lan laa moom maa ngi fi toll nii ñu ngi toll ci waxtu woo xam ne di def bëreetul kon ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññaan nag bopp organisateur yu baax a baax ñu gën a jàppaat ci liggéey bu baax a baax xam ne di ci sañ dara suñ daay bi fi mu toll rëy na lool te li ko jagal lépp ci membre organisateur la nekk kon man mi nga xam ne seen bopp laa seen xarit laa jiitu ci commission bi maa ngi sant baax baax a baax ñu dooleel góorgóorlu dëgg la taxawaay bi rafet na lool ni ñu organisé bi macha allah rafet na lool ñu séddalee commission yi jaar na yoon waaye nag ñu ngi ñaaxaat mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi génnaguñ ci liggéey bi waajur yi ak euh, borom kër yi ak mag yi ak rakk yi nañ soññ njaboot bi ñu bokk ci liggéey bi bokk ci commission organisation bi jàpp ci liggéey bi ndax la liggéey la boo xam ne nii ni ñu koy waxee toujours bëri jële bu tegee ci mbattal boo tegee mu dem boo tegul mu dem kon li la war mooy fexeel nga teg sa loxo mu dem nga bokk ci ñi nga xam ne boo liggéey dañ wax ne bëri bi tegu naa ci sama loxo te loolu li jëpp solo mooy commission organisation bi mooy jëpp solo ndax ñoom ñooy def baas yi ñooy teeru kan yi ñoo leen di dalal ñoo leen di toppatoo ñoo leen di jox xéewal yi te liggéey bi na lool te membre yi xaw naa néew kon ñu ngi soññaat ñu ngi soññaat ñëpp ñu wëlbatikuwaat ñëw jaayantewaat ci commission organisation jàppale ñu ci nekk ñëpp ci biir liggéey bi ndax bis bi daye bi ñu toll organisation bi moo ko moo ko yore kon ñu ngi sant ñu ngi soññ nañ ko ñu njaboot bi ci biir kër yi xale yi ak mag ñi ak jigéen ñi ñu ñëw jaayante bokk ci commission de gestion bi ñu fas ndax ñu am ñu lu seen darootam kon ñu fas yéene jaayante bu baax fas yéene liggéey seen darootam ndax ñu li ñu war a mooy liggéey seen darootam amuñu leen tum du liggéey seen darootam loolu dañ koy fàttali ko mooy de sëñ Bay Falloo waxoon sëñ Bay Falloo dafa waxoon ne buñ la joxee ndigal nga tëddal ci néeg bi ñu jox ndigal ne ko soxna si demal ci tool ba liggéey yow añ jot nga gis añ bi jëm tool yi nga xeeb li nga dem ci néeg ba tax nga ne damay dem tool yi añi sëñ bi nee na soo demee doo añ ndax añ bi da ngay juyee añ bi soo demee tool yi nga fekk waa tool yi añ te sama añ ñëw ci néeg bi la fekk kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk sëñ Darou Hassane li ñu war mooy bokk sëñ Darou Hassane jaayante ko sëñ Darou Hassane ba ci liggéey sëñ Darou Hassane ndax loolu rek mooy li ñu war te comme ni ñu ko defee ñëpp duñu naw ñëpp duñu dégg ñëpp duñu fàttaliku ñëpp di xool ko sëñ Darou Hassane nit ku waa ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñooy góor ñi ñooy jigéen ñi dañuy jaayante ba fa sëñ lii nga xam ne dañ koo téye suñu loxo nga ko ñooñu ko nga xam ne ñoo nga xam ne ay membre fondateur yu yàgg lañ loolu dafa gën a daw samay rab loolu dafa maa gën a fàttali fa ma nekkoon dem ak barki dem man la ma doon def dafa ma ko gën a fàttali ba nga xam ne sama yaram dafa taw nga xam ne ni ni ni mu taxawee ni mu mel man mooy aw am naa yëg-yëg boo xam ne nii lay lay sama bëgg-bëgg mooy fas ma ko yéene wuute bu ko suñ borom dogalee kontaan naa loolu ci laaj boobu ndax na moom du ma laaj waaw jërëjëf waaw waaw waaw bi ñu waaw ci xayma waaw waaw fukki ci ak ñaar yaakaar naa ci xayma moom lañ doon ko kon ñu yéene tëdd na ci li nga xam ne moo dem mooy dem ci xéewal yi moom li ci war a dem lépp ci dem na ci am na yeneen yoo xam ne ay yeneen yu ñu jëf ay xéewal yoo xam ne yéen benn mais yooyu day jëm ci day jëm ci gan yi nga xam ne mooy ci dé ñëw terminé ci tëdd yooyu ñu ñu koy toppatoo moom lañu moom lañu teg ne waaw loolu daal moom kontaan nañ ci laaj boobu daal jërëjëf jërëjëf taslimi wal barakati xudi la tahlimi يا كرما كونك لي يبين سلالا من اسمه مبين <clears throat> ولا علي وسأب سوي السيانة ما سلام وكني خيانة يا رافع لديك يزكو الحمل سلالا من اسمه مؤمل ولا علي وسأب ذي التورع ما سلام ولتخلد أمرعي يا من إليه الحاج والوصول سلالا من اسمه وصول وآلي وسابي وسلما وبتوالي فجل والسلم يا من به حول لنا وقوة سلالة من اسمه ذو قوة <coughs> وسلما في الآل والساب مها وفي توالي في المقامات ما يا باقيا ليتقود رحمة سل بتسليمنا على ذي حرمة ولا لوسب سبيل الحتائب وكالكلي نوير بلا خطاء يا غير منسل أرى إسكانه سلال على المختار ذي المكانه ولا لي ولا